public peut-être bi teel a un peu de temps. wuti mbaamu presse quoi man ma waat ko quoi. war mbaamu presse. di ko nuyu bu baax baax di nuyu suñu naataango Dame Mbacke moom it bokk ci staff bi di kontaan ci moom bu baax baax. di nuyu le directeur technique de doroom muy Babacar Ndaw ah di ko jox wàcc kaayam bu baax a baax di nuyu nag presse bi yépp képp koo xam ne teew nga fi ak ñi fi teewul sax ñun nuyu nañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla jamono bu ñu amee xew bii rek. pressu kees yépp dañuy àndandoo daal di ñëw ànd ak ñun ci événement bi ba ba muy jeex si nga presse bi engagement bi ñu am bés bu ko ñi nga xam ni ñoom ñooy bonne volonté yi ñépp amee ragal naa ni kenn dootul jooy dara ci diwaanu Thiès kon war na noo xool ci presse bi bu baax a baax ba ñeneen ñi jël engagement ñu xool ci engagement ñii ba lépp lu ñu soxla ci kees ñu xam ni c'est kees dans kees kon maa ngi leen di siyaare yéen ñëpp tey kontaan ci yéen di leen ñaanal yàlla kenn ku ci nekk organe ba nga nekk yàlla na ci yàlla yëkkati say garaat waaw yóbbu bëgg mu egg fa waaw gannaaw bu ñu jugee ci loolu nag di nuyu képp koo xam ni yàlla dogal na ah mbaama fis nga lee mbaama fis yiy jóge kees yee mbaama fis yiy jóge ci raison yi yée mbaama fis yu jóge ci département yi lee mbaama fis yu jóge ci dëkk dëkkaan yi wër kees ñoom ñépp nan jàpp ne man Ibrahima Ngom Sanokho maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal yàlla poos yu def dara ba ñu mën a ñëw delluwaat seetaan seen seen seen course am ci seen jàmm di nuyu yit les ngonkër les ngonkër mooy xale yi war mbaam yi tous les ngonkër yi ñëw ci bis bi jàppal ne man noxo nuyu naa leen bàyyi naa leen xel ndax bu du woon ngonkër yi du neex waaw ngonkër yee ñëw rek course bi neex kon ñoo ngi nuyu ngonkër yépp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla di sàkku ca ña nga xam ni ñoom la yàlla dogal ñu nekk ca mbaama dorom ba di ñu teeru yàlla may leen wér ba bu ñu leen fekkee ca mbaama dorom ba incha allah lañ fa soxla yépp ñu am ko ñoom it lañ ca yaakaar ñu jot si yàlla na ko yàlla def ci barke Moustapha ah di nuyu nag suñu autorité yi nga xam ni ñu ngi nekk ci dëkk bi ndax wax dëgg yàlla ah suñu autorité dalal nañu ndax tey bu ma demee seeti ku mel ni gouverneur mu dalal ñu dégluñu ñu wax ko li ñu bëgg wax ñu ko yaakaare ci moom mu accepteel nu ko ne incha allah lépp lu mu ci mën dina ko def ñu dem préfet dalal ñu moom it nañu vraiment bu ma gënal damay woo lépp lu autorité ci kees def ko CRD la wala CDD ñu waxtaan ci ndax course bi am na dimension boo xam ni loolu la war a am daal ñuy dalal génn ñu xalaat yu baax teral ñu ba pare nag jël ay engagement yu mat sëkk pour mën a jàpp ci bis bi maire de la ville momit it dalal nu nañu malgré damay tukki yalla mën na dogal sax bisu course ba duma fi fek mais lepp lu jaadu lo xamni warna am ci bis bi di ci taxaw daa di ki nga xamni mom lay ci minute jox ko ay directive nako lepp lépp meuna def tel mako indil ma signé ko bala ma dem ndax dama bëgg ñu taxaw ci bis bi taxaway bu ëpp sax nañ fa daan engagement bobu it maire de la ville jël na ko te daf ñoo dalal ci biroom ñu demaat ci yeneen autorités yi nekk ci dëkk bi ñii jot na leen par téléphone ñii nekkuñu fi waaye jot nañu seeni ndaw ya nekk ca fa ñu leen bàyyi ca mairie ya kenn ku ci nekk it wax nga ak ñun loo xam ni vraiment bu fekkee ne nañu ko waxee noonu lay doxe gis na ne ñun duñu am benn jaaxle yàlla suturaal nañu it ba képp koo xam ni daal nañ la yóbbul leetar maanaam yóbbu la demande de soutien ndax loolu nag la course mbaam bi dundee course mbaam bi soutien lay dundee parce que ba ñu ko tàmbalee ba léegi du budget buñ ci am du xaalis bu ñu denc pour moom dañuy xaar bu mu jub si ñu bind ay demande de soutien dugal ko ci waa kees ñi ñuy répondre ñoo ñuy permettre ñu mën a jox xale yi ay loo ñoo ñuy permettre ñu mën a toggal xale yi añ ñoo ñuy permettre ñu mën a jox xale yi seen passe aller retour ñoo ñuy permettre ñu mën a jox dox ay soxlaak dugal ci ay mbir yi nga xam ni moom lañ ci am ci course bi ndax fas yéene nañu lépp lu ñu waay jox ñu dugal ko ci course bi ndax course bi moo tax ñu laaj ko ñooy it yàlla dimbali nañ ci ba ku ñu war a jox lettre ci diiwaanu kees dem nañ ba ci yow jox la lettre ñenn yi nga xam ne nekkuñu fi sax bi ñu leen woowee dañ leen yónnee ñu ko par WhatsApp mais dinañ ci jot ñu yónnee leen ko par kon ñun lépp lu ñu waroon def def nañ ko dem nañ ci police bi dem nañ ci sapeur bi dem nañ ci croix rouge bi ndax ay mbaam ak ay nit ñooy daje ay mbaam ak ay nit ñooy daje noo lépp lu ci war ndax ba ñu gouverneur doon wax ni nañu teel a jóge foofu nga xam ne mooy buntu musée ndax xajutu fi pour suñu sécurité ñun parce que nag xam na ne mbaam à tout moment mën naa defi bagaasam moo tax ñu woo sapeur woo woo woo croix rouge woo woo service d'ordre yi ci war a ñëw yépp yàlla dogal na ñoom it jox nañ ñu seen ah, ah, kàddu seen engagement que ne dinañ ñëw kon fii may toog di wax ak yéen yaakaar rek la ñuy dundee dem wax ak nit ki mu wax ak ñun ñu téye yooru gëm ne dina am kon nag dën leen di ñaanal ba lii nga xam ne moom lan ñu wax saa borom dimbali leen ñoom ba ñu mën koo def ndax bu leen yàlla dimbalee ba ñu def ko ñun suñu avantage la avantage u kees la avantage u dëkk dëkkaat yi wër kees la kon daal pour xamal leen ni jekki di wax sax course bi nii laa ko daan tàmbalee ak nii laa ko daan defee ragal naa ni li ñu ko fi wax bari na kenn ku ci nekk xam nga fañ daan déparé xam nga li taxoon ñu dugg ci xam nga lan moo tax ñu def ko sama yaakaar ba tax na jekki bay dugg foofu ah euh, dañuy jàpp ne

fenn fu ci ne nit dina fa jóge ba bitim réew am na ñu fay jóge ñëw ngir course bi importance bi ma bëgg a wane ci course bi nañ ko bàyyi xel te xam ni fii ci Sénégal course mbaam bu mel nii keneen ku ko def danga ko roy ci ñun def ko te nii ñu koy defe sax man xam naa ni soo ko bëggee mënoo koo defe noonu loolu yàlla moo ñu ko defal kon ñun waa Kees nañ leen téye course bi nañ leen jàpp course bi ñu respecté course bi dugal ko ci lépp lu jaadu lu mu war a mën a dugg ci dëkk bi ñu nekk ndax réew yépp ay ñëw dinu seetaan si fan nga jëm kees loo fay seetaani course mbaam muy lu raar kon dañ koo war a sóoraale bàyyi ko xel ñun nag dara duñu tax en arrière dañu avancer à tout moment di ko def avec des moyens maigres yoo xam ni mënuñu koo doxal amuñu mais dañuy def lu ñu man lu ñu for sànni ci pour mu jëm ci kanam loolu moom fas yéene nañ ko incha allah ndax dañoo ko digaalee ko waa kees digaalee ko dëkk-dëkk yi wër kees at mu jot ñu ñuy xaar défilé neex na trop gaay na nekk ci maas ma maaj yi ak militaire yi suñu lépp génn ndax suñu feetu indépendance la faw ñu wane suñu bopp mais nag ni ñuy waxtaanee course mbaam bi moom dong lañ koy waxtaanee défilé bi mën nga ko défilé mu jàll ñëpp fat ba déwénati course mbaam bi amul bis booy xëy te nit néew la course mbaam bi mbaam mi defoon lii mbaam mi defoon laa ñu reetaan tàppante dem te li ma ci gën a neex mooy kaw tirbine ba jamono ji Sénégal yëngu na stress yi bari na nit ñi ku nekk yaa ngi am ay xalaat mais moment ya ñuy daje ca course ba waaye moment ya ñuy waxtaane course mbaam bi stress day jeex ñépp danañu reetaan dinañu tàppante dinañ bàyyi même loo xuloo xuloog nit booy toog booy ree ba di ko lëng sax doo ko tey te mu dajale parti yépp ca kaw tirbine ba dajale ethnie yépp ca kaw tribune ba muy moment de bég moment de kontaan moment de reetaan bu ñu ko xeeb nañu ko dund ndax xol yii dafay soxla loolu yàlla nañ yàlla suturaal ba buñ ca duggee képp ku fa ñëw jàmm ja nga fay séentu yàlla may la ko képp ku fa ñëw ngir wut si te la nga fay wut am fa yàlla la ko yàlla jox ndax loolu lañ gëm waaw date bi nag mi ngi nekk le treize samd bii nu jëm am na nag lu nu tëral ni nii lañu ko fas yéenee doxale dañoo bëgg ni ñu waxee ne noonu lañ ko fas yéenee doxale rikwaay ku ñu jàppale ñu ci borom mbaam yi dañoo bëgg ñu teel a ñëw boo jógee fu mel ni sànge walla nga jóge fu mel ni xuur xàndan wala nga jóge fu mel ni kër maamur ngunju wala nga jóge ci dëkk dëkkaan yu sori yu mel noonu am ñuy jóge ba Jurbel am ñuy jóge ba cana ba am ñuy jóge ba ay taseet ak yooyu ñooñu boo leen nee nañu teel a ñëw rek yem ci mën naa gën a guddi moo tax ñu xalaat ne xale boobu dañ koy wax ñëwal nga yendu si ñu toggal la añ jox la ndox nga toog féex sa mbaam nga yeew ko nee ñu sottil comme ngooñ ndax genn wàllu mbaam yi ci dëkk bi yëpp mboob la ñuy dunde mboob liggéeyloo sa mbaam ba muy bëgg a dee nga tekki sann mu top ci mbop mi rek di yey yow nga jaay ngooñ ma jaay gerté ga jaay dugub je c'est pas normal mbam mi nak bu dikkee ñun ni ñu soxla ay ginaara ki miswi mom moom moy ginaara mak miswiem mom da nañ mom ko ko jugal bu mu doy mu commencé yëy yow ñu jox la sab nga añ bu sour ñu commencé dawal course bi ñi ngi ñaan nañ xalé yépp teel a ñëw yenn ñi nga xamni ñom ñoy ñew pour sétane course bi dañ leen di ñaan ñu teel a ñëw parce que léeg-léeg ñu am problème boo xam ni sérieusement duñ ko mën a régler ndax dangay nekk suñu nit nekk suñu gan ñu bëgg laa dalal daal di defar benn tribune officielle nga toog ba ñépp toog nga soog a ñëw boo egsee ñun du ñu am fu ñu la teg pour nga toog muy difficulté ñuy xool nan la ñuy fexe pour nga toog muy affaire boo xam ni faaw dinañ ko def mais day metti trop mais boo teelee ñëw ñu jox la place ndax course bi nag nee nañu duñ ne kenn jugal di jox keneen muy toog inshaa allah duñu wax kenn jugal nga xajal kii mu toog képp ku teel a ñëw ba jël place toog fa nga toog dañ koy respecté ak yow ndax feet la te ñi feetu ñooy ñëw kon teel leen a ñëw ñu jox leen seen wàccuwaay teg leen seeni place ngeen teel a ñëw ñu teel a commencé course bi ndax li ma dégg staff bi wax ko mooy fépp fu quatre heures et demi jotee dinañ commencé dawal première course man duma fa nekk naa leen gouverneur ñëwagul ak préfet ñëwagul wala monsieur maire bee ñëwagul wala homme de politique bi ñëwagul loolu duma ko wax damay toog fële bàyyi leen ñu doxal seen course kon maa ngi ñaan ñi nga xam ni samay nit lañu ñi nga xam ni bëgg nañu seetaan course bi te ñu bëgg a ànd ak seeni njaboot di ñëw nanu ñëw te teel a ñëw ñu jox leen fu ñu war a toog ñu toog fa kenn rek lay interpeller muy lu ma ñor muy monsieur le préfet gannaaw bu ñu sargalee gouverneur ba pare préfet toll nañu ci dimension boo xam ni programme bii du programme bu ndaw nit ñi danañu génn macha allah stade ba dana fees

dañ ko ne kaay feetu jox ko mu def ci poosam bu gañee la mu gañee ñu jox ko ko jox ko muy lekk ak naan waaw kon loolu boo koy def jéemoo ci um benn revenu boo lay defaat sa poos sponsor yi ngeen di dégg ñu koy wane jël sponsor yi di leen wax jàmbaar lañu ndax ñi ngi ñuy may ay loo mais du xaalis bu ñuy jox boo xam ni dañ koy jël di ko jox xale yi loo yi nag dinañ ñu may macha allah boo leen dikkee stade ba di ngeen fa gis ay banderole yu ko inondé waaye la koy de yépp wax dëgg yàlla dana nu may ay loo loo yi may nag xeebuñu ko ndax mënuñu ko jëndal suñu bopp mais buñ ñu ko joxee xale ba raw suñ ko ko joxee mu dem dëkkam kooku dina ko amal njariñ boo tax na du xaalis bu ñuy dajaleel di ñu ko jox xaalis la bu ñuy cof fii cof fee cof jël musiba dóor ci kaw njekkar ba jàmm am noonu la ñuy dundee kon ñoo ngi ñaan loolu bu amee nan ñu jàppale teel a ñëw préfet jàppale ñu ci service dord bu doy ñu ñu mën a jàppale sécurité nit ñi ay autorité fay ñëw ay gana fay ñëw fu nekk la di jóge te bu ñu sañoon ku dëkki kees am fi jàmm ba ñibbi jàmm waa dans un premier temps foofu laay tënkee samay kàddu di leen sant di leen gërëm képp ku ci am nag xalaat boo loo may laaj incha allah lépp loo ma laaj sama maximum possible fa sama xel yem dinaa la ca tontu incha merci Walimata Sal, Central FM. Walimata Fall Central FM merci. ah ñun de dinañ am sax problème course bi ndax toujours gu jot dañuy wax duñu ñu téméri mbam ñun duñu ñu 100 mbam chaque année li lañuy wax. mais ba ñuy arrêté mbind mi dina di soog imagine benn xale bu jógee Jurbel xëy fajar ànd ak mba midi passé maa muy egsi bu midi jotee ñu arrêté mbind mi xale boobu bu egsee dañ ko war a wax doo daw wala dañ ko war a bàyyi pour mu daw loolooy suñu léeg-léeg ñu ne téeméeri mbaam dinañ am sax téeméer ak juróom fukk léegi la ma woon man ci deux mille deux mille yu ma war a jox xale yi damay am problème parce que day jeex ba ma am problème ndax xale bi yéex a ñëw staff bi nag nee nañ ma génnal ci mbaam yi ñoom ñu organiser ko fu ñu amee téeméer arrêté waaye la directeur technique nee na mënuñoo seetaan xale boobu dikk moom tamit te dawul ndax mënoo sonn ñëw te dawoo mënuñu koo seetaan léegi nag ñoom ñooy xool nu ñuy toje seen bopp jinax mais pour leer daal téeméeri mbaam moom wax dëgg yàlla bu ñu su ñu amee ci la ñuy yem. waaw am na ay critères am na ay critères yu bari sax ndax am na disqualifié am na ne la waxuma la disqualifié mais dañuy fexe sax nga ñibbiwaat yow ci waaw ndax mbaam mu yooy lékkut ñu ànd ak i faaram kooku duñ ko bàyyi mu daw àttu ñu àq boobu mu am ay góom ñew ak ay gomam bobu nga duñ ko bayyi mu daw mbam mu lol duñ mu daw ndax fas wa all bi xamne mbam yi der bi nit la am der bi dafa am ay anticorps am ay bën bën am ay koku bu setut dara du ci dugg te lu mu tilim tilim du la motax do ko sang mbam du xeeñ mbam mbam munu mu bu jege mbam bu yaaka ne xeeñ xala mu dugg ci lu xeeñ mais mbam mi ci bopam du xeeñ kon mbam momu ne sang di ko dimbali yaa ngi koy lor dañoo bëgg gay yi di sang mbaam yi ba nu seet wicc bu nu mënee am laj ko lañ sax xëppaale ko ko mu xeeñ lu neex bu ko defee mu bañ a am góom ndax fas yéene nañu mbaam mi gën a set ci mbaam yi gën cee suur gën cee rafet am na récompense bu nu lay jox ndax ku mën a toppatoo mbaam bëgg nañ la récompenser ñu tënk fas yéene nañ koo def juróomi course boo gisee ñu def ko juróomi course it directeur technique wax ci la ñu teg suñu tànk ba xam ni kon da def juróomi course nan ndax dañoo naroon a def ñeenti course bu vingt te téeméeri mbaam dinañu ëpp sax ko am mu ne bu ñu def ndax dañoo waxoon na suñu dawalee jël les les trois premières grand muy quatre cinquième course mu ne bu defee loolu ñëpp duñu daw te buggul mbaam dëkkam léegi nag bu ñu defee ju tànn yi catégorie mbaam yi nga xam ni gis na nit ñi ñooy mbaam yi ci gën a jàpp en forme ñu def leen grand prix dawal leen ñu ñu ñu ñu ñu dem daan nañu am sax problème dawal lu war a mat téeméer ak juróom benn fukk te di nga gis benn mbaam ñaari yoon mais ren loolu dañ ko dañ cee jël wor ndax fas yéene nañoo am ay dosaar yu numéroté mbaam bi bu ñu ko aligné moment bi ñu koy jox vingt mille bi ñu koy jox deux mille am dañ koy solal dosaaram ñu jox ko deux mille kii ñu solal ko dosaaram ñu jox ko deux mille fu vingt yi arrêté ñu ne ñu ci des dem leen ci ginnaaw ba beneen course ñëw noonu lañ ko fas yéenee def te mbaam bu xëyit dinañ la recenser bu ñu recenser ñi ñuy jël ba pare nag dëgg-dëgg keneen ku ñëw bu ko gaa yi mënee négocier ñu jàppale ko kontaan naa waa central. Mhm. d' accord. merci ci question boobu ndax euh, ñun ragal naa ni bariwul lu ñuy def course di parrainer kenn benn course grand prix bi ñu tudd kooku co cosaan la la tàmbali woon ba ñuy ca poussière ba ca buntu musée ñi ñu fa mënoon a fekk bariwuñu mu am jàmbaar ju ñu fay fekk dikk valoriser course ba foofa ñuy ànd ak moom pendant dix-sept dix-septième édition kooku tudd ko wërta ñaaw kooku keneen ku dégg turam keneen ku dégg ay mbiram dangay gëm ne kii fa mu déparé la muy ku mel ni euh, Mor moor juuf moor juuf dawal nañu course ba pare suñu ñetti course wala ñeenti course mu wàcce ca tribune ba ñëw ne ma noxo dama bëgg nga dawalal ma benn salange Ablaye Wade may tànn mbaam yi ñu ñëw daw ko mbaam mu raw ma jox la fukki junni ca jamono yooyu duma xañ booy yi fukki junni yi ndax man fukki bu ma sañoon xale bu daw ba pare ma jox la téeméeri junni ma ne ko amul problème ñu dawal ko mu taxaw ci public bi yëkkatu fukki junni jox xale bi keroog dëkk boobu ku fa fanaan boo moytuwul di nga reere salaat ak yàpp ndax dañu cee gaaw a jënd ay ginaar suñ feetal dëkk ba ñoom ah ku ci mel ni ma dem madame ay Aïssatou Thioune APEDOS jël coupe bu rafet di ñu ko jox coupe bi mënoo bàyyi rek ñu daw nga joxe ko noonu kon dernière course ba la ñuy seet mbaam ba ca jël pee ñu boole kook solo jox la ko coupe bi nga dem ndax xale yi dañuy feete yéen war ngeen a ñam xale bi gañ a bi ba dem dëkkam ba koy bay fuural fa ngeen di comprendre paa yeeg maire yi ñëpp ay dugg ci géew ndax dañuy bég ndax seen mbaamu dëkk a jël loolu loolu il faut ngeen dem seetaan ko lu am solo la xam naa ne buñ ca tolloo dinaa leen wax pour ngeen ñëw wan loolu waa Sénégal ba xam ni la ma xelaatoon man ba ñaan yàlla xale bi dëkk ca àll ba sentir indépendance comme xale bi dëkk ci dëkk bi dinañ leen wan la ma ci yàlla defal ndax bu ñu ñëwee ba jël indépendance bi ba dem seen dëkk dinañ ko feete feete goo xam ni gàmm ya fay am sax du mel noonu waaw kooku pour moom mu ñu noonu lay demee. léegi nag course bi bu amee fas yéene nañu autorité bu fa ñëw course bu jàll dinañ xool benn autorité bu fa nekk ñu ne ko kaay joxal ñu suñu loo. nga ñëw joxeel ñu suñu loo mais pare na wu joxuñu kenn tey yow yaa yor lii yaa moom course bii yaa noonoo ndax liñ ci wax mooy politiser wuñu defuñu entrepreneur feet la ñéppay feetu bërigo dëwlin la nag kenn ku ci ne ni nga ciy duggee noonu nga ci niine c'est simple kenn ku ne ni nga ci duggee rek noonu nga ci niine

ba fii may wax ak yow nii duggagul ci budget maanaam agenda culturel bu Thiès duggagu ci te ah jooy nañ ko wax nañ ko ba tàyyi Babacar Diop nag mii ñëw maire am na yéene ci lim ma wax ngir mu dugg ci agenda culturel bu Thiès ba pare nee na li nga xam ni noonu la ñuy defal nawetaan yi di ko defal équipe de football yi di ko waaw di ko defal yeneen yeneen yeneen sport yi discipline sport yi loolu dañ ko war a defal mbaama drop am na yéene pour def ko ñëwagul nag ñëwagul ndax man li may wax gouverneur bu fiy ñëw fiy ñëw ku ñu ku ñu ku ñu ci kees di la defal po ak kay ñëw am naa baat bu ma lay wax ndax damay faral di wax ba di way baax waay boppam bonuk waay bopp boo guddee fan xam ci dara baax waay boppam mais loolu may wax du question way nit bu defee lu baax moom xam na nit bu defee lu bon moom xam na te la la yàllay fay ëllëg yow dala koy fay ngay teg sa bët mais ku ci ñëw ku ne dama naan la am nañu droit ñaanal la yàlla mais amaguñu droit gërëm la nag ndax yaa ngi soog a ñëw defagoo fi dara boo fi defee dara booy dem dinañ la gërëm boo fi defut dara booy dem dañuy croiser la bara moment bi ngay ñëw nag dana la ñaanal yàlla teg la ci jàmm nga ñëw ak jàmm fekk fi jàmm nga mën fee liggéey jàmm mais pour le moment amul benn budget pour mu leer amul benn budget bu ñu dencal lu dul lu dul ñi nga xam ni ñoom la ñuy yóbbul suñuy leetar les bonnes volontés ndax at mu jot wax dëgg yàlla tàyyiwuñu at mu jot ñu jël seen alal jox la xaalis ni nañ la jox ni mille la jox 000, mille la jox 50 mille ni la jox lu francs sax dinañ ko xam na ko sax mais lu ñu joxit nag ñu def très bien très bien <laughs> boo xamoon coono bi ñuy daj moo tax bi ñu ma nee bul ko génne koor gi nee naa ñii comprendre ñu dañoo comprendre moo tax ñu ne ñu bul ko bul ko génne koor gi waxuma la sax man bisu course ba coono ba may man bisu course ba am na moment boo xam nii gis nga gars yi ñu may wax sarax ñu ngir yàlla bul jugati am na moment boo xam ne ñu ma téyewul damay daanu ndax damay gis lu ma bëgg a régler te mënumaa faw ma jug jaabante yéeg escalier bi wàcc léeg-léeg mu jàpp ma ba day metti mais coono bi ñuy daj pour collecte xaalis bu ñu mën a def ci course mbaam bii ak ni ñu ko tàmmale xale yi kooku at ba at dañuy am problème asantumaak boo ko bëggee def par six mois bu ñu yàlla dimbali woon mu am ñu nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale su leen neexee chaque semaine ñu def ko mais amuñu ko essance bii may taal sama oto di ko wërib ñun ñoo ko ciy sol ñun ñooy daj lu ne pour dem lijjant ji loolu man fii ma toog nii di wax ak yéen télé yaa ngi ma wër gaa yaa ngi may wax mais wallaahi léegi laa ko wax Babacar Ndaw nee naa ko ah Babacar mu ne ma ne ko xaw naa tiit dëgg dëgg xaw naa tiit mu ne ma après président ko dara daa duggagul lu ñu mën a téye lu ñu mën a téye loo xam ni leer na ni mën naa doxal mbir mi duggagul te quatre jours a ci des te am naa sama benn nijaay ju baax ju kees xam ju ju ju ju ma bëggoon ci sama xol muy jaaga jaag sama nijaay la sama nijaay jaaga jaag nee na ma hee sama jarbaat jox ma dara ma ne ko waa toos waa xaar mu ne ma wuu xaaral jiguma ma ne ko ah mu ne ma may ak xeexa yam boo ci waaj doo ko def man ne ko toos wax nga dëgg mais effectivement maye ak xeexa yem xeex bu naan lee dóor ma kii naan dóor ma demal bul àtte du ñu xeex bu fekkee da ngay xëy na ko rooso paaj mu toog bu la neexee nga jàpp waaw mais maye may ma nga ne waa xaaral ma dem fii te ñëw waa xaaral ba ngoon bul yaakaar mën na faa jaar ne fes doo ko gis mën naa ñëwit fekk ne la nga doon lijjanti dee nga ci ba ne laaj naa am ngénte dem ci samay gaa yépp yëgal leen ngénte li waaye ku ma ko yëgal dinaa bul xaar ba ma sonn ngay soog a ñëw boo muy dimbali teel maa dimbali waaye bul xaar ba ma ne laaj ngay soog a ñëw mais c'est vrai sécuriser ko pour tur wi sécuriser nañ ko muy le mbaama dorom le mbaama dorom sécuriser nañ ko mais ka dajale ay mbaam ca ca ca ca ca Touba euh, euh, Mbàkke am na ku fay dawal course mbaam Louga am na ku fay dawal course mbaam yàlla dimbali na ma nag ci ñoom yëgal nañ ma woo nañ ma na ma dañoo bëgg a def course mbaam kenn doo nga naroon a déconné muy waaj a jóge woon booru ngéej ñëw na day def course mbaam daal di wax ak man ma ne ko saawaay biir kees na dafay dawal mais man xam nga ñan moo ma xulul borom mbaam yi ci àll bi ñoo may woo saa loxo bul sonn ñun suñuy mbaam du génn li may wax saa yow bu ci xuloo fekk ma commencé wax jëm ñoo yow bul xuloo dëkk yëpp den mbaam du génn kon ka yow bul sonn ah. yàlla dogal waaw gis nga fii nga dugg dafa ma neex man damay tëdd mës naa tëdd ba presque deux heures di matin ñu woo ma téléphone ne ma buntu banque bi nekk ci mairie banque ba am na benn banque bu nekk ci mairie boobu ca buntu ba am na benn oto bu fi laal benn mbaam ay deux heures du matin ma jug dem toppatoo ji loolu otobilal, moom oto bi laal mi ngi ànd ak doom bu ndaw doom baa ngay curpi ne la di daw yaay jaa ngi tëdd parce que dëkk bi parfois day jekki-jekki mbaam kese lay doon tali boo jaar mbedd moo doon ay mbaam la damay damay damay toog sama kër Ibrahima lii ma woo keneen woo na ma keneen woo ma pour mbaam yi dama ciy gërëm nag di ñaanal yàlla muy président Meysse Meysse Meyssa Mbaye Niang moom moo yoroon waa ASPAE ak ak yelleefu mala ñu def ay formation yu bari ay nit ñëw formé ci yal na yàlla yaatal barzaqam ndax ku fonkoon mala ngi noonu dafa génn àddina yal na yàlla yaatal barzaqam e, mbaam yooyu man dinaa dox ci mbedd mi ba ci yàgg ma gis sareetu mbaam bu ñu aj loo xam nii mu jaaduwul ma freiné sama oto wàcc tekki mbaam mi ne ko da ngay wàññi bagage yóbbu ko mbaam ñu tekki mbaam mi may sa mooy indi woon ne yat yi ñuy dóor mbaam yi ci course bi nañ ko arrêté parce que warta mën a feetu ñu koy dóor wax na dëgg ba gutt lañuy jël def ci ay xeer yëngal ko di ko ko dàqee mbaam yi ci jur gi lañu bokk boo leen déggee mbabooru mbaam mi ñuy way bu ñu ko wayee daaneel ba mooy ci jur gi la bokk kon di ngeen ko bëgg nii. daf ma fàttali lu bari ndax dama ko mës a wax ak gouverneur bi fi nekkoon muy amet si ma ñëw mu recevoir ne man a saanoxo kursu mbaam bi depp toll na foo xam nii dafa war a am sax mbaama doroomu boppam ne ma dangay ñëw fële ci ginnaaw sag ba ñu wutal la fa terrain bu rëy mbaama dorom su ko defee ñu xam ne fii c'est le doroom de Thiès ma ne ko effectivement mais ginnaaw sax ba dafa sori mu ne ma yow boo demoon ba sànge di fa def course mbaam gars yi dinañ ñëw ma ne ko loolu dinaa ci bàyyi xel toll nañu benn jamono ma ne bu feetu indépendance bi day jub si comme bu ñu génnee ren rek li may def mooy damay dem mbuur dawal fa course mbaam dem Louga dem nangam dem bu ñu paree loolu trois jot indi leen kees ñu daw le grand prix daw daw mais faute de moyen faute de moyen parce que moyen la laaj daaw jéeg bi ñu coursé mbaam ba pare daawaati jéeg mooy bi ñuy mujjee bi ñuy mujjee def Covid ah, bi ñu defee course mbaam Covid bi ñëw am na ambassadeur yu nekk Dakar dikk wooñu woo Maysa président Maysa ak mbaam waa yi nekk euh, marché central ne ambassadeur bi nee na doomam dafa seetaan course mbaam bi mi mësul gis mbaam nii nii donc nañ ko indil mbaam oto lu ñu luwee dugal ci mbaam bi ànd ak moom yóbbu ko fa mais sama naqar mooy ba ñu seetaanee course mbaam bi ba dem di ko yóbbu yëguma ko man yëguma loolu ba ñu demee def pare la ñu soog a ñëw ne ma temps te sama course mbaam xale bi gis ko ñu ñëw na ma et pourtant ki moomoon mbaam moom mi ngi fii ci marché central suñu leen ma yóbbu boole ku ci bëgg dangay ñëw ñu ànd ba ca moom nga jël ko mu wax la lañ la yóbbu mbaam ma ak mu fa xew ak la fa xew yépp mu wax la ko mais man mënu la cee expliquer mais ñoom ñoo ma et pourtant ambassadeur bi soxla na mbaam bi ñëw ñu wut oto lijjanti nu ñu yóbboo mbaam bi mu dem ci ambassade ba ñu dugal mbaam bi foofa

nañ ci am nag droit de regard. question avant le français. ci Sénégal Serigne Diom Ndiaga Babacar Faye mooy mooy mooy Serigne bi fi mu ne nii ndax Diom Ndiaga làqu na woo na ma yaakaar naa démb ba may woo Babacar Ndaw a ngi mu ne ma wut naa mbaam mu baax waaye gis naa ni ñu ko gisee ci presse bi ni ñu koy gisee ci rajo yeeg ni ñu koy dégloo ci télé yi man daal sama xol bii mbaam mi tudde naa ko DJ mo fas yéenee daw na nga xamé mbam mi man ko insha allah bu diké na présenter DJ Pi rek ñu bind ko nak taf ko presse bi na xam seen mbam boobu nag waaw voilà kaddu gu mujj gi ginaaw bi ma santee bu baax sante la presse sante autorité yi sante kep kuy jël sa dërëm diko ci duggal sante na la gërëm naa la da ngeen xamni man awma benn bis ci kees bu dul course mbaam man awma anniversaire awma journée lii awma journée laa benn bis laa am di ko doxal muy course mbaam te feet laa ko def wutuma ci xaalis dama ko def ngir kees bëgg nit ñi am jàmm nit ñi féex ree dund lu neex benn bis boobu laa am te képp koo xeebal bisam ah, bu la doyadelee sax jar na ko yàlla suturaal na nag bugg ñoo doyadeel kenn mais nit kenn du ko xeebal bisam dompat sax ci sot la bokk kon képp koo xam ni yaa ngi ci biir kees man de duma wax sama bopp waaye ragal naa ne amal naa kees njariñ man sama yaakaar li ma yaakaar xëy na amal naa kees njariñ ba tax na képp kuy politicien ak parti boo mën a bokk mbubb boo mën a sol grade boo mën a am te dëkk kees woo naa la yóbbul naa la lettre dem naa seeti la ci sama bis bii te saa woo amee sa bis boo ma woowee ma ñëw kon maa ngi leen di woo ñoom ñëpp. zone militaire numéro 7 coupe lañ may jox ñoom ñoom dañoo bëgg course bi dañuy jël coupe boole ko xaalis sax jox ma ko jox nañ ma ko ba tàyyi ci zone 7 ma leen di woo militaire yëpp nañ ñëw ci course mbam. bu ndikkee sax ma jox leen mbaam ñu dawal suñu mbokk caverdien yi nekk cees ñoom course mbaam ba ñu mujjoon a def dañoo def ngandam délégation ñoom course mbaam seen dëkk seen feetu indépendance mooy feet bi gën a rëy ci seen dëkk ñoom ak seen façon bi ñu koy defee ñu ne course mbaamu kees dañoo bëgg ñëwnu bokk ci dugal ci seen bopp man leen soyez les bienvenus ñëw leen ñu ànd def ko malheureusement Covid bi dugg Covid bi li mu ñu yàqal na waaye yalla nu yalla bu mu fi ñëwati kuy bi dal yalla ni yalla sutural ba mu melni ma juddu legi mag legi de legi taxna len ko après na ngeen ko tek waaw en français nak bala ma len ko jox dama len di wax lu leer ñun Sénégal tubab bi buma togon ci wétam di lak daf may essayer comprendre mais duma ré ñun nak bo naan ngaa ñu lay toj essayé leen maa comprendre sama njàng soriwut waaw sama njàng soriwut waaw sama ah voilà mbokk mu baax la euh, njëgeen ku jàpp ci course mbam bi la ku ku ku téye ci course mbam bi la waaye nag course mbaam bi jox na ko récompense kii kii xawma kuy fàttee ci course mbaam mais du moom ndax la Thérèse bu ñu nekkee ca mbaama dorom bay jaabal moom ma nga toog ca kaw lalam di xaarab séet waaw day jël soxna la Thérèse kon ko ko loolu signe bu baax la yàlla ko yàlla barkeel te ñëw amal ko njëriñ mu am ci njaboot. information rek a tax mhm. mhm. ma mais journée bu ñu ne mooy journée course mbaam bi boo xëyee huit ba dix neuf heures da ngay laaj millions yi ñuy dépensé fan lay jógee fan lay jógee nag bi ñuy rey. Hmm. añ ngi ñuy togg. Hmm. ndox yi ñuy indi. camion ngooñ bi ñuy gaare pour mbaam yi di lekk <laughs> que xam nga xam ne aussi moom mënu ko wax que ñu ngi bokk yàgg àndandoo moom lépp daaw nee naa baawkat noo ko est ce que lépp xaalis. lépp mu ne ma man ma ko non parce que damaa xam ne xoolal mbaam. mbaam mu ne ànd ak fukki gone nga leen 10 heures leen bu ngeen xëyee yi ñëpp fi ngeen di añee fi ngeen di naanee fi ngeen di naanee café yeew leen mbaam yi ñu jël saako ngoon bu di teg parce que nee naa ko image yooyu dañ ko war ci photo Babacar di ko génne pour nit ñi xam aussi ngay wax. Mhm. mu nekk charge boo xam ne bi dama bëgg aussi loolu kenn ci presse yi maanaam journée bi comme Ibrahima Ndiaye mu topp ñu journée bi.

ñaata lay dépenser ci ay million il faut ngeen laaj ko loolu. coût global course bi ñaata million la bëggoon naa la vraiment ñu laaj ko coût boobu la ñu merci en français rapidement. yow bu baax a baax di la wax ni fête gi waa kees ngi ciy feetu waaye samay mbokk ngi ciy feetu de. waalo dagana ndakaaru leer gi sama bàyyi jóge xombal amul fu sama mbokk di nekk te ñëwoo ci bis ba sama kër. mais il y ngi ñuy ah, mesdames mademoiselles messieurs mes mes mes mes mes amis mes amis de la presse vraiment je suis très très très très fier d'être thiessois parce que la presse de Thiès on on m'a donné beaucoup de courage pour faire cette, course-là. Parce que quand tu pars à Dakar, quand tu pars le monde national, tu regardes le course Mbam. Parce que les, les, réseaux sociaux, ils sont faits en direct dans, le net. N'est-ce pas Les télévisions de Thiès, ils sont divisés les courses. Si mon père reste à la maison, il regarde le course, son cœur est nerf. je content. vraiment, je suis très fier sur la presse, euh, euh, presse de Thiès. Pour la course, de la, course Mbam, je ne veux pas parler de la course Dan, je dis la course Mbam quand je fais la course d'âne, il est très, il est très difficile de euh, récolter de l'argent pour les enfants. Parce que l'enfant qui venir ici à Kies, déparer le, le Khourkhandang, euh, euh, déparer, le Kermamour déparer Sangé, venir jusqu'à Kies, aller le Mbamodrom, retourner à mes vides, ça, vraiment, je ne, le, veux pas. Je veux que si leur enfant venir ici à caisse, faire, faire la course, retourner avec, à sa domicile, il amène quelque chose. C'est très normal. Je dis tout le monde, tous les Thiessois, tous les bonnes volontés, les autorités de Caisses, tous les autorités, depuis gouverneur jusqu'à les, les, les, directeurs des services, il faut nous aider pour recouvrer, beaucoup d'argent pour aider les enfants. N'est-ce pas Je pense que vous, vous, vous, comprenez ce que je veux, ce que je veux dire. Hein? J'ai essayé de, parler parce que mais je ne fais pas les bancs. La course est prévue Très bien. La course, c'est prévu le 13, samedi prochain le 13 mai, samedi prochain, à partir de 16h. 16h, 16h30, on commençait la course. Nous dire tous les de venir dans, dans, dans, dans le il faut nous venir très tôt. Parce que un, un, un venir prend une chaise, tu le dis lève-toi, tu le donnes à quelqu'un, vraiment ça, je ne le ferai pas. Quand tu veux assis dans les bonnes conditions, il faut venir très tôt et tu euh, euh, euh, et on, l'a donné une très bonne place avec tes enfants, tu regardes le cours Maintenant, Bon, nous attendons euh, le minimum, minimum 100 BAM. Nous attendons 100 BAM. C'est 5 courses de 20. 5 courses de 20, c'est 100 BAM. Inch'Allah, tous les courses, chaque enfant avec ton, son, son BAM, je te donne 2000 francs pour ton frais de déplacement. Quand tu fais ton course, tu prends le premier, je te donne ton lot et ton lot de congélation, et tu amènes devant ton, maison. N'est-ce pas Côté sécurité, j'appelle le, le, préfet. De grâce, il faut nous aider pour amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de sécurité policiers. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui venir là-bas. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des vieillards qui venir là-bas pour regarder le course. C'est le course, tout le monde veut partir dans la piste, tout le monde aller dans, dans turbine. tu, fais barrer les autorités pour regarder, ça nous fait mal. Si nous amenons beaucoup de services d'ordre, ça règle le problème. Il faut nous aider amène-nous beaucoup de problèmes, surtout monsieur le préfet, il faut le faire ça. On en a besoin. Les policiers, la police, la, le sapeur-pompier, le Croix-Rouge, tout le monde, on nous évité tout pour venir. La presse, vous êtes dans la course, vous, vous êtes des membres de course MBAM. Vous êtes des euh, euh, membres de l'Estaf. Que vous, Dieu, vous, garde, Dieu vous donne beaucoup de paix, beaucoup de grâce, tous les télévisions, tous les presques en ligne et, les euh, sites que Dieu vous donne. Nous, nous, nous, nous, nous, ah beaucoup de choses beaucoup de choses avec votre affaire là parti dans le haut. waaye maame maame boo bayee sa tool ba mu baax doo wax am naa camion doo wax am naa brouette doo wax am naa paan danga naan am naa ñaari mbaam am naa ñetti mbaam yàlla daa bind fas jox ko noobul yi ñu war buur yëpp da daan war ci kaw mbaam yàlla xam ne bagage yi ñu yor war naa mën a dem mu sàkk mbaam mu yëkk mën a jox suñuy bagage réew mi metti woon laal mbaam nekk fii liggéey réew mi dem ba neew ñu bëgg koo fàtte man loxo ma ko nangu wuy